Ablaye Daouda mhm. euh, tamit euh, c'est une candidature qui est beaucoup agitée mhm. euh, ban vision nga am sur Ablaye Daouda ah j'ai aucune vision particulière ludul. la même question est-ce qu'il a la légitimité pour pour pour prendre cette candidature là technique politique li ma mën xam ci moom mooy lan la mooy c'est un militant de la première heure. militant nag ni mu koy jëlee du militant dem jënd carte ci benn base de. militant président Macky Sall ci premier heure ba xeex bi di metti la ñoo ànd ak ñun deuxièmement jàng na xarañ na su xarañul woon xam nga ministre ministre tel ministre sel yomb na mais am na ministre ay budget ah ay Abdoulaye Daouda fépp fi mu jaar ah ça n'a rien à au conseil conseil politique mais ministre xam nga ni am na ministère yoo xam ne c'est technique saa waay mënoo def à peu près mënool mel ni yaa xam ba nga xam ne say affaire sorewul ah nga ñëw bëgg fa da ngay xam économie nga xam loolu donc am na lu bare loo xam ne mën na ko teg ci taabal bi ah ñu ni ko gongo ensuite am na loo xam ne day différencier lu bare ci entre politique am na base politique lu ñu mën wax base fa ay mbokkam nekk fa ay am di jàmmam nekk ay consort mu fay dem donc euh, mais may est-ce que ñun li ñuy liste yëpp ah loolu c'est ça qui détermine soo waxee loolu dafa fekk da nga da nga gàtt xel dellul 2010 dellul 2008 bi Macky Sall di fippu parce que li ñu ko teg du ko nangu parce que loolu la wax man góor la duñ ma teg loo xam ne teguñ yoon ma koy nangu fippu woo ay nitam ñu nekk benn ñaar ñett fukk ay ay say mu dem à la conquête de l'électorat sénégalais dem diaspora dellu si Sénégal kooku dafa liggéey li ma am